que ragaluñu tey ci ay fayantoo am parce que Ousmane Sonko qui parle de l'affaire Mame Mbaye Niang parce que loolu da ko lu bëri bëri ah, bu ñu waxante dëgg rek entre ko ko dégloo démb. parce que li ñu yëkkati woon mu ciy revenir naan ay sos ay fen lañ ma kiiwee. nga xam ne parce que li ñu yëkkati woon ci affaire Sweet mhm. ak li mu garaawee ci deru nit. Mhm. ak ci kilifa ak ci borom kër. waaw xam nañ ne mujjantal bi du jur dara. ñu créé leneen. waa ji ci boppam lan la ko doon laaj ana rapport bi waxul na waxul na li nga wax ni maa ko def de wala defuma ko de. Mm-hmm. ana rapport bi la koy laaj. parce que rapport bi dañ ko nëbboon xam ne moom du mun a indi rapport benn ñaareel bi mooy bi ko waa ji euh, porté plainte dafa ne diffamation am déet. Mm-hmm. procureur lan la ci teg foo usage de faux. Mm-hmm. loolu mooy doo mus a rëcc boo indee rapport ñu topp la ci faux usage de faux. boo ko indiwul tamit boo ko indiwul ñu leen diffamation. donc doo rëcc. loolu nag da ba tey. léegi nag ci pro ci procès boobu waxuma la nu ñu ko barale mhm. c' était inédit. Ouais, dans l'histoire juridique ñu def lépp dans l'histoire judiciaire du Sénégal. c' était inédit comme bu Khalifa Sall bi rek waaye. le procès de Madiambal et Juste Lico là du diffamation. Mhm. ñaata weer la def. le procès de euh, capitaine Touré et Cheikh Yérim. Mm -hmm. ça fait combien amul benn boo xam ne mën nga ko mëngalee ak procès bi. Mhm, waxuma nañu ko baralee mais dañu profiter ci loolu. nee na nee nañu comme contumax la dañ koy retirer ci liste électorale yi te procédure bi toppuñu ko ba mu yegg. ci loolu la juge Sabassy Faye sukkandiku pour ne loolu tegul ci yoon. mais léegi ma question mooy loolu ba tey fàtteeku ko parce que quand il parle du rapport qui existe et que mu yor ko yor ko. que ne. mais mais Ousmane il veut les choses au clair. est-ce que jaadu na non non non non non non xam nga li mu wax démb nit ñi ñoo ko jiitu. Mhm. Ousmane Sonko il était avec ses militants ses jeunes. Mhm. bi nga xam ne il a également un devoir d'explication vis-à-vis de ces jeunes il parlait pas au peuple sénégalais il parlait pas en tant que premier ministre du Sénégal il parlait en tant que président du PASTEF qui rencontre sa jeunesse. oui mais ma rek. sauf que ah, ma rek déglu ma mhm. ma rek bi mu jàkkaarloog ñoom ñi nga xam ne fukki nit yoo jël. Mhm. juróom-ñeent ak génn wàll dañu doon xaar candidature Ousmane Sonko. c'est nit ñi jàpp ne moom moo yàq candidature candidature am il fallait que mu donner des explications mu ne leen liñ ma ne woon bi ma waxee ne euh, euh, ministre sangam dafa luubal xaalis te rapport épinglé na ko ñu topp ma ci yoon parce que dañoo nëbboon rapport bi yàlla moo mun atte tey jii rapport bi mu ngi sama kaw biro mm-hmm. pour montrer à ces gens liñ leen mun ta wax ci war wax boobu teguwul. parce que bii nii moo tegu jot naa rapport bi waxul lu mu ciy def. ma question mooy loolu nag maintenant que yor na ko qu'est-ce qui va se passer. non rapport bi mooy sama kaw table bu rapport bi nekkee ci kaw table te parquet jot ci parquet dafa war a def liggéeyam parce que ñoom dañuy tere parquet def liggéeyam. donc mën nañu ñëwaat ci affaire bi. bu ñu ñëwaatee parce que élément nouveau am na mooy sa rapport qui existe maintenant. voilà bu ñu ñëwaatee ci rapport bi. du tax Ousmane Sonko nekk candidat mais au dina setal deram comme ni ñu setalee deram ci affaire euh, Sweet Beauté